ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di nuyu mboolem kilifa yëpp rek ak mboolem ñu nekk ci daar gi yëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax ñu fa yéene dellu siwaat ci sunu bind fukkeel ak ñett ci téere boobu di muxtasar seexul xalil di ñaan suñu boroom mu dimbaliñ ci ñu ngi woon ci bunt bi ñuy waxee lu aju ci teggini faj aajo muy dem wanag tey ñu war a tàmbalee ci wa wajaba war na istibraau laablu bistifraaxi ax ba say ni ci sàkkoo génne yaari sobe ya ma salti zakarin ànd ak rattu sakara wa natrin akuk fëgg xafa yooyu woyof nañu ñoom ñaar ki nga xam ne dafa dem ci wara wi nee na war na ci moom mu teeylu ba mboolem sobe su nekkoon ci moom génn sobe si génn mu teewlu ba mu génn ba pare ñaari sobe yi bu ko waxee rek lim ci jublu mooy sobe si génn ci buntu suuf bi ak sobe si génn ci buntu sawukaay bi bu dee sobe si génn ci buntu suuf bi na bàyyi lépp génn bu dee si génn ci buntu sawukaay bi bu dee jigéen la moom buy tuur ndox lépp dafay daldi génn <coughs> bu dee góor nag moom mën naa takk ci bant sawukaay bi nee na nag kon loolee tag ni mu koy dindee mooy dafay jël baaraamu sànnikaay bi ak baaraamu déyam jàpp fii saxukaay sawukaay bi saxe ratt ko ba ci bopp bi mu fëgg ko ndànk loolu na ko def ndànk rek bu koy fëgg ak bu koy ratt yëpp na ko def ndànk moo ci indi xafa googu ndax bu fekkee ne dafa xër ci diinam tax mu koy fëgg bu baax wala mu bëgg lu set tax mu ratt ko bu baax mën na koo jural am njokkale dem ba bi nga xam ne moo téewoon bantu sawukaay bi yorom mën na koo jural am njokkale kon ratt gi ak fëgg gi yëpp na ko def ndànk te loolu sax mu koy def rek bu fekkee ne jàpp na ne am na lu takk ci sakaraam bu fekkee ne nag dara tegu ci moom du aajowoo mu koy ratt ko fëgg mën naa raxas rek daal di dem wanu riba soppeef na jam maa in boole ndox wa xajarin ak doj summa maa in topp ndox nee na booy raxas sobe si lañu gën a taamu nga boole fomp ko ak ay doj ba pare door koo raxase ndox maanaam nga boole ndox ak doj danga koy njëkk a fomp ak doj yi ba pare door koo raxase li nga xam ne moom mooy ndox nga jiital ñaar yooyu moom lañ gën a taamu boo amut ñaar nga raxase ko ak ndox bu fekkee ne ndox amul nag nga door koo mën a fomp ak doj wala morsa wala bant yu demee noonu waaye nag ni mu waxee jamono yi yi ngi nekk ci àll bi rek la woon waaye bu dee suñ jamono ji ci kër gi moom bu fekkee danga nga koo bëgg a defee nii ñu waxee mën naa indi lor ndax bu fekkee ne da njëkk a fompe sobe si ay doj ba pare door koo raxase ndox ndox wala nga fompe sobe si ay bant ba pare njëkk koo door koo raxase ndox su boobaa mën naa jur lor ndax boo bàyyee doj yi ca duus bi noonu mën naa taqal duus bi salteel ko boo ko bàyyee itam dugal ko ci biir paxu duus bi bu yàggee mën na koo sakk fatt ko mu indi lor kon mel na ni jamono yi ci kër gi moom mën ngaa daal di raxase ndox rek ngir daw lor jooju ci am waaye daal li mu wax rek bu dee ci àll ba nga nekk moom mën ngaa daal di jëkk koo fompe ay doj ba pare door koo raxase ndox bu fekkee ne amoo loolu nga door koo raxase ndox bu fekkee ndox amul nag nga door koo fomp ak ay doj wala bant wala morso yu demee noonu watta ayana ràññu ko na moom ndox fii nii ci maniyu wa xaydin ak dereti mbërëk wa nifaasin ak dereti wasin dafa am yoo xam ne nag moom fomp du ca doy faaw ndox rek moom moo ko mën dindi yoo xam ne fomp ko bàyyi ko noonu du ca doy liñ ci njëkk a wax mooy maniyu maniyu bu fekkee dafa génn ci doomu aadama kooku bu fekkee daa ñàkk ndox ba bëgga a pour julli su boobaa mëniyu boobu fomp rek du ca doy kon na wut ndox bu fekkee ne amul ndox mu mu mën a sangoo lu doy sangu na wut ndox lu néew néew bu ko amee mu raxas ci foofee nga xam ne moo ko takk ca mëniyu ma waaye fomp rek du ca doy bu fekkee amul ndox nag mën naa daal di tiim daal di julli naka noonu jigéen ji bu fekkee dafa gise dereti mbërëg wala mu gis dereti wasin ba mu jeex te amut ndox mu mu sangoo deret jooju fomp rek du ca doy bu fekkee mën naa am dara ci ndox lu mu ko raxase kon daf koy raxas door a tiim julli bu fekkee nag amul ndox moom ko raxase kon mën naa tiim rek daal di julli waaye loolu moom fomp du ca doy wa bawlu imraatin ak sawum jigéen wa muntasirin ak aji tasaaroo xan maxrajayhi wala xan maxrajin waris ab génnukaay kasiran lu bari naka noonu sawum jigéen jigéen bu tuuree ndox kooku fomp du ca doy dañuy wax ne jigéen bu tuuree ndox saw mi dafay tasaaroo kon kooku fomp ko rek du ko doy faaw mu wut ndox raxas ko ko raxase ko ko ak itam loo xam ne dafa génne ci buntu suuf bi moo xam góor la moo xam jigéen la ba pare tasaaroo moo xam góor la moo xam jigéen la bu fekkee dafa dem ci wanag wi la génne ci buntu suuf bi bu fekkee daa tasaaroo kooku fomp dootu ca doy faw mu wut ndox raxasi ko ko wa masiin ak masiyu bi xasli zakar yi ànd ak raxas sàkkaraam sa kulli yi léppam naka noonu li ñuy wax masiyu moom itam bu génnee fomp du ca doy faaw da koy raxas moom sax dañ digal mu raxas bantu sàkkare bi yépp fa mu tàmbalee fa mu saxe ba fa mu yem loolu moom lañ digal moom masiyu bu génnee doonte sax takkul takkul ci bantu sàkkare bi yépp waaye faw dañoo digal ñu raxas la tàmbalee ci bantu sàkkar bi fa mu tàmbalee ba fa mu yem yépp fa fi niyati nekk na ci warug yéene ga ci buy raxas bantu sàkkar bi ci masiyu ni yaari wax nee na masiyu bu génnee ndax daa war ci booy raxas bantu sàkkare bi yëpp fa mu tàmbalee ba fa mu yem ndax daa war nga yéeneel ko wala warut foofu am na xawlaani ñaari wax waaye mel na ni yéene ji moo gën a wóor ndax ndegam dañu ko digal rek te xamuñ lu tax tax muy taxabut jàmm yàlla ñu koy def kon la gën a wóor rek mooy yéeneel ko wa butlaani salaati taarikiha ak yàqu julleeg aji bàyyeem ja moom itam am na xawlaani ñaari wax ki nga xam ne dañ koo diggaloon buy raxas masiyu bi mu yéene yéenewul daal dem raxas ko noonu rek ndax kooku bu jullee julleem nga dana wér wala julli nga yàqu na kooku itam am na xawlaani ñaari wax waaye la gën a léemtu rek mooy mu yéene ko rek aw taariki kullihi wala aji bàyyi léppam kooku ba tey am na xawlaani ñaari wax ki nga xam ne itam dañ koo digal ne ko mu raxas sàkkaraam lépp mu raxas lenn sàkkara si raxasul lépp sàkkara si bàyyi la ca des ndax kooku julleem dana baax wala julleem du baax dont sax ba muy raxas si ànd na ci yéene waaye raxasut lépp daa raxas lenn la bàyyi lenn la kooku ba tey am na xawlaari ñaari wax waaye yëpp mu wax daal la ci gën a léemtu rek ndegam ñii nee nañ dana baax ñeene du baax la gën a wóor rek mooy ki koy def mu yéeneel ko wala yustanja deefut tàncu man na itam wala yustanja deefut tàncu min riixin ci aw ngelawal ngelawal désu ca tàncu loolu ak ëppal la ak teengal diine la ak ëppal la ak teengal diine la nit ki ngelawal rek du aajowoo muy wut ndox naan daf koy raxas dafa am lu ñuy wax al istinjaaw am lu ñuy wax al istijmaar al mooy nga dindee sobe si ndox al istijmaar rek mooy dawandiku mooy nga dindee sobe si leneen lu bokkut ak ndox mel ni nga fomp ko ak i doj wala bant wala morsa moom lay wax naan wajaasa dagan na moom al istijmaar dawandiku bi yaabisin ci aji wow taahirin juy aji laab mun risin juy aji setal xeyra musin joj du aji lor moom dawandiku moomu dagan na nee na waaye dañuy bëgg boo koy def nga defe ko lu wow defe ko itam lu laab bëgguñu nga jël sobe di ko dindee sobe loolu ëpp naa def boo koy def itam na ko defee loo xam ne lu mën a setal la bu ko defee loola tax dana ko wax ci kanam boo koy def itam bu ko defee loo xam ne lu mën a lor la loo xam ne boo ko dindee sobe mën naa xotti saw yaram gaañ la bul ko defee loolu wala muxtaramin lu caagee lu nu warmaal lu ñu warmaal moo xam ak lekk la moo xam ak naan la moo xam am mbind la dana ko wax bu ko dindee sobe la mubbu tallin du caageenu aji tooy dalaa waxoon ne la na nga ko dindee lu wow kon nag bul fekk lu tooy nga di ko fompe sobe si ndax loolu mën na ko gën tasaare war na gisin ak aji sobewu daf laa waxoon na la taahirin na ko dindee lu laab kon bul fekk loo xam ne sobe la mel ni aw neefare woo xam ne sobe la nga di ko dindee sobe wa am la sax ak aji ratax daf naa waxoon mun risin luy aji setal kon nag bul fekk loo xam ne lu ratax la nga di ko dindee sobe loolu mën naa gën a tasaare sobe si wa muhaddidin ak yi am ñaw ka loo xam ne dafa am ñaw ka daf laa waxoon ne la gayra musin loolu du aji lor kon bul fekk loo xam ne dafa amee ñaw ka nga di ko dindee sobe mel ni paaka wala loo xam ne lu ñaw la daal loo xam ne boo ko dindee sobe mën naa xotti sa yaram bul ko fompe sobe si wa muxtaramin ak lu ñu wor warmaal min matoomin ci lu ñuy lekk wa maktubin walla am mbind wala lu ñuy bind wa zahabin ak wurus wa fiddatin ak xaalis naka noonu itam bul fekk loo xam ne lu yoon di warmaal la nga di ko dindee sobe mel ni ak lekk ni mburu finto ni mburu mu wow bul ko jël di ko dindee sobe bu ko xalaata def naka noonu itam loo xam ne lu ñuy bind la doonte mbindum tubaab la sax bul ko dindee sobe ndax lépp lu ñuy bind rek dañ koy wormaal kon lépp loo xam ne lu nuy lu amam mbind la rek bul ko dindee sobe bu dee mbindum alxuraan moom xalaatee su ko waaw lépp lu ñu bind rek bul ko dindee sobe ndax lépp lu ñu bind rek dañ koy warmaal bu ko xalaata dindee sobe naka noonu lu mel ni wurus ak xaalis bul ko fekk itam di ko dindee sobe loolu dañ leen a warmaal bul dindee sobe si wurus bul ko dindee xaalis wajidaarin akum miir naka noonu itam sib nañu bu fekkee sa miiru bopp la ngay dindi sobe si di ko ci taqal sit nañu ko bu dee miir boo xam ne yow yaa ko moom waaye bu dee miirub jàmbur sax moom day araam bu dee miir boo xam ne miirub jàmbur la nga di ca dindi sobe di ko ca taqal loolu dafay xaram loolu tooñ la wa azmin akub yax wa rawsin ak neefaree daaba naka noonu itam sobe si bul ko dindee ab yax bul ko dindee itam ne fay daaba yax boobu doonte yax bu laab la ak neefare daaba yooyu doonte neefare daaba yu laab la bul ko xalaata dindee sobe ndax dañuy wax ne jëmmi yax boobu mu tudd jinne yi moom lañuy dunde jinne yi moom lañuy dunde kon nag bul fekk dundub jàmbur nga di ko dindee sobe neefare yooyu mu tudd daabay jinne yi moom lañuy ñuy dindee waaw kon daal moo xam ab yax la moo xam ay neefare la bul ko fekk nga di ko fompe sobe doonte neefare yu laab la ndax yax boobu moom la jinne yi du dunde neefare yooyu daabay jinne yi moom la ñuy dunde kon nag bul fekk dundub jàmbur nga di ca dindi sobe waaye fa in an xat ndeem setal nañu moom yooyu yëpp mu tudd aj sa at mu doy yooyu yëpp nga xam ne daf laa tere ne la bul ko dindee sobe mu ne lu rattax loolu wala lu tooy loolu wala lu am ñaw ko loolu ak loolu ñuy war warmaal yépp loo ciy jël rek dindee ko sobe ndeem ba nga ko dindee sobal sa sobe sa setal na ko rek kon nee baax na ñu laa tere rek nga dindee ko sobe waaye boo ko dindee sobe bu setalee itam kon baax na kaya din ni ki ab loxo naka noonu boo jëloon sa loxo nga fompe ko sobe si nga dindee ko sobe si ba itam baax na wa duuna salaasin ak lu yées ñett naka noonu itam bu fekkoon da ngay fomp sobe si nga fomp ko benn xeer wala ñaar nga xam ne àggul ci ñett kon su boobaa itam mu doy waaw duñ ne faw nga fomp ko lu tool mel ni ñett waaye boo ko fomp woon benn wala ñaar tamu setal ko itam su boobaa dana doy daa am nag ñuy wax naan lu yées ñett lu doy waaye wax ji a wóor rek mooy boo ko fompee lu yées ñett tam seetal ko rek incha allahu dana doy mhm. kon bunt boobu foofu la yam ñu fàttalee ne sobe moom bu fekkee ne sobe soo xam ne dafa génne ci buntu sawukaayu góor wala loo xam ne daa génne ci buntu sawukaayu góor loo xam ne daa génne ci buntu sawukaayu góor ak lu génne ci buntu suufu góor ak bu jigéen bu fekkee ne tasaaroowut duñ sart ne faaw ndox rek lañ koy dindee mënees na koo dindee leneen lu bokkut ak ndox mënees na koo fomp mënees na koo fompee doj wala xeer wala morsa waaw loo ci xam ne nag daa génn ba pare tasaaroo moom waxoon na ko faw nu war koo raxas naka noonu bu fekkee ki nekk ci wana wi daa yóbbaale lu mel ni saabu itam saabu boobu bu co bu ko bu ko raxasee sobe si faw bu pare na ci jaaralewaat ndox mu mel ni ndox ma ñuy jàppe mooy ndox mu laab insha allahu taala kon xam naa mën noo taxawlu foofu ba dellusiwaat foofu la bunt boobu yem ñoo ngi dogal ngant mboolem mbokki borom xam-xam yëpp lu fi jub ñu xam ne suñu borom la lu fi dëng itam ngeen jéggal ñu ko te jubbantil ñu ko wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh